sëriñ bi yow na nga nu may ngir yàlla ak yonen ba tey xam-xam bu nuy fegali mooy fawaka boole ki ndigal sëriñ bi yow na nu may ngir yàlla ak yonen ba tey xam-xam bu nuy fegali mooy fawaka boole ki ndigal ngir nit lu xam-xam te bawul li yàlla mi tere deful li yàlla mi digle asal ferul li ejji sax dalul ku dem fi ab jaxam dërëm du la jariñ amub dërëm moo lay jariñ moo tax ku xam te jëfewul xamul amul koo seeru xam na ab dërëm ba noppi tey wutub dërëm doo gis ku doy loo xam dërëm wali si wutib dërëm wutil kem li nga jëf rekk nga am kem li nga am rekk nga xam li nga jëful du li nga am du li nga xam yeewul jógal donte dangaa xamoon ba xam la yoon nenu yàlla ba xam ak la malaaka yépp xam te jëfi woo lëf nga xamul donte danga jëfoon ba jëf la yàlla ba jëf ak la malaaka yépp jëf te sellaloo lëf nga jëful boo sellaloo nit jëpp jëf te xamagoo na dee fi def ëllëg sa jëf yile nga jëf konit it sa xel warul la dal adduna ak dex la gu xóot ku tàbbi ci dex gu xóot te génnagul nay reelu ba génn mucc te lëbul képp ku dex gile ronu bul bég ci gaa yi ronu ngir bég ci gaa yi ronu dafay waral labak labal topp ndigal moo dik saxaar ku dugg nag gile saxaar te génnewul ci gi saxaar ajana lay wàcc asal leen nuyoo fii ci jumaa ji euh, di sant yàlla bu baax a baax euh, ginnaaw bi nga xamee ne sëriñ bi joxe na ndigal ci ñu gën a yaatal nit ñi niñ koy leeral ci suñ communication yi maanaa fii ci jumaay Tuubaa nag bi nga xamee ne xew-xew bi tàmbali na ba léegi muy Covid 19 bi amul benn waxtu boo xam ne ñàkk nañu julli wala ñu ñàkk def xeeti jaamu yàlla yi ñu fiy def yëpp. sëriñ bi daf ñoo digaloon ngir ñu wàññi mbooloo mi ba noppi jël matuwaay bi nga xamee ne nag barki démb bu joxal na digal ngir ñu gën a yaatal nit ñi ñu ñëw waaye nag ñu gën a dolli matuwaay matuwaay yi naka jekk euh, daan nañ ko gën a daan nañ ko def waaye bi nga xamee ne gën nañoo yaatal mbooloo mi dañ ko gën a yokk nga xam ne juróom-benni ponk yoo xam ne tënk nañ ko bi ci njëkk mooy nit ki ñëw ci jumaa ji balaa agsi wala ñëw na indi masque bu ñëwee ba ci bunt bi na raxasu ak oddu sawel bërigo yi oddu sawel yi yiñ def ci bunt bi wala mu laal alkozène su ñëwee ba ci biir gis ngeen ne sàppe yi dañ koy soreele diggante nit ku nekk mètre ndax norme yooyu la docteur yi wax euh, nga xam ne diggante bu nekk am na sax rëdd yu ñu fa def ngir bañ nit ku fa toog suñ dee génn tamit ñu génnandoo ben ben ta bañ rajlo ci buntu bi ndax suñ ko rajloo rassemblement day am jigen ñi ak gone yi nga xam aljuma waru len ñom ñu bayi len ñu tok ci kër ya yaatal mbolo ni ni ngeen di gisse timit ne daayira bi dipi bi nga xamé ne mbass mi tambuli na ba mana juma ji dañ koy désinfecter toujours mana dañ koy pompe lata nit ñi di tok dañuy yokk timit matuwaayu ciat gi nettoyement bi ci karo yi wad sawel ak liquide yi nga xamne moy setal yëpp suñ julle ba noppi timit da ngay gis ne danañ pompat fi nit ñu doon julle ngir désinfecter ko ngir bañ ben microbe rek dess ci nit ki fim doon sujjoot wala nangam lool lepp it bi koy def ci ndegalul sëriñ bi euh, boole ko ak ñaan yi nga xamne sëriñ bi mi ngi koy def ak ñaan ñu bax ni ngir bëgg képp ko xamne ñew nga ci juma ji man nga def sa jaamu yalla ni nga ko bëgge am sa ndigalul boroom ba noppi am kaaraange loo xam ne kaaraangeel saayir lay doon segam ñoom ñi nga xam ne ñooy saytu feebar bi ñoo ne ku def lii mooy tax nga mucc ci moo tax jumtuwaay yi nga xam ne ñoom moom lañ wax ñëpp muy juróom yi wala juróom yi nga xam ne ñoom digle nañ ko yëpp sëriñ bi daf ñoo digal ñu jëfandikoo ko fii ci jumaa ji ak mboolem jumaa ak jàkka joo xam ne yaa ngi ci àtteb sëriñ bi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 bayala bay te muñ a muñ ngir ñi ngi lay toggali añ baykat bu ñuy toggali añ na itte woo mbayam murit lu dul ak bàyyiku te soññi boppam waru ko yow jébbulul te bàyyiku ngab sab sëriñ aw ndigalam murit lu dul ak bàyyiku te soññi boppam waru ko yow jébbulul te bàyyiku ngab sab sëriñ aw ndigalam